voilà ab ab jaay ñu gën ko xam ci Njaay Bambey di liggéey liggéey bu am solo waaye tamit bu ñu ko gisee xel day dem ci le président Doro Gaye borom euh, xippi plateforme boobu nga xamante ni ci social rek lay dox askan wi yëpp xam nañ ko ci def lu baax alors tey ñu ñëw ci tribunal am dogal bi nga xamante ni suñu borom jël na ko teg ci kaw Doro Gaye euh, ñu bala rek nga présenté aussi nga def point li nga xamante ni mooy point de presse bu ñëw ak ñëw ci relance question yi. Euh, ñu ngi lay fay ci nuyoo bi. di nuyu sénégalais yi di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi euh, xëy na yàlla def na ne boobu ba tey ñi ngi dégg lu nekk ci internet bi ñi ngi gis lu nekk ci internet bi ñi ngi wax lu nekk ci internet bi mais comme ni Doro gay di doxee rek ñun noonu la ñuy doxee moo tax tey ñu décidé ne dañ wax ak sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo jar a waxal ndax Doro Gaye li mu nekk Sénégal je pense que ci sénégalais yi la ko def ni mu taxawee Sénégal sénégalais yi gisal nañ ko seen bopp li am nag ñëpp xam nañ ko ñaari nit ñaari civil yu jote la ñu jaay kenn ki kenn ki soxlaatul wala wóolootul lañ ko jaay mu bëgg ñu delloo ko xaalisam ki nga xamante ne mooy Doro Gaye d'accord pour delloo ko loolu nga xamante ne moom la ko joxoon waaye gis nañ li nga xamante ne mooy ndogal bi ci justice jël moom nag nitu dëgg la nitu jàmm la salaam la kon ku fonk justice su réewam la ba tax na bépp décision bu justice jël ñun amuñu ci benn commentaire bu ñuy def xanaa kay dañuy utiliser waat yeneen moyen ak yeneen procédure yi nga xamante ne justice may nañu ko ngir que ñu mën a am ndam ba moom mu am liberté dellu ci liggéeyam dellu ci dimbal bi muy dimbali askan bi dellu ci taxawaay bi nga xamante ne mi ngi koy taxaw sénégalais yi ñu bëri jàpp ne euh, jamono ji nekkatul civil ak civil mais état du Sénégal daf cee dugal loxo genre fayu est loolu noonu xalaat boobu sénégalais yi am est-ce xalaat boobu ngeen dund yéen. Ah, man maa ngi tribunal euh, fi ma yem mooy décision bi tribunal jël ñun ñëpp ay sénégalais lañ bépp décision bu suñu yoon jël ñun ñoo ko war a fonk ñoo ko war a màggal ndax su yoon amul woon ci réew mi je pense que kenn du mën a dund ci réew mi ba tax na amuñu benn commentaire buñ ciy def. li nga xamante ne justice bi décidé nañ ko moom Doro Gaye ci boppam d'accord na ko malgré que ki mu joteel juba woon nañ ba mu war ko delloo li mu li mu ko yoreel mais justice moo ko décidé sénégalais nag soo nekkee un bon citoyen su justice décidé da ngay accepter li justice décidé waaye nga utiliser waat yeneen moyen ak yeneen procédure yi la justice may pour que nga mën a am ndam li ñu gëm mooy lépp loo xamante ne Doro Gaye mi ngi koy def fii ci réew mi lépp loo xamante ne mi ngi koy taxaw fii ci réew mi je pense que dañuy jël témoin sénégalais yi gis nañ ko ci këru diine yi gis nañ ko ci këru aada yi gis nañ ko ci daara yi alxuraan yi gis nañ ko ci université yi gis nañ ko muy dimbali néew gu doole yi gis nañ ko muy tàmbali di jàppale képp koo xamante ne da feebar te sa loxo jotul sa ginnaaw gis nañ ko ni mu taxawee ci xel xelkom encore ñuy remercier di di di di jërëjëf di sant këru diine yi nga xamante ne nekk nañ Sénégal moo xam Touba moo xam Kaolack moo xam Tiwaawan amul kenn ci ñoom ku tànqamlu li nga xamante ne mooy nattu bii dal ci kaw Doro Gaye waaye nag comme niñ koy waxee jaam yàlla mooy teg jaam nattu te yàlla su la tegee nattu da koy nangu li ñu gëm mooy li nga xamante ne moom la Doro Gaye taxawee ci ci réew mi dañuy wax alhamdulilah kenn jàpp ko ci sàccu alalu réew mi kenn jàpp ko ci drogue kenn jàpp ko ci def naka noonu jënd ak jaay yàgg naa am coow yàgg nañ ko lijjanti yàgg nañ ko régler ci loolu la. ci loolu la mais est ce que yéexoo leen jug. Euh, est ce que communiqué bi nii yéexul da ngeen jël da ngeen dem ba ànd ak Doro Gaye ci rythme am maanaam moom tekk ci suuf rek Doro Gaye boo xoolee problème bi la nit yi di soog a bàyyi xel image yu bëri photom yu bëri ci lañ koy soog a xam est ce que loolu yéen waroon na leen est ce que waroon leen woon teel a jug. ci suuf rek je pense que je pense que dafa am loo xamante ne euh, soo nekkee un responsable doo tontu waxu mbedd. doo tontu ku toog yor téléphone am di wax lu ko neex doo tontu ci ku lay waxal loo xamante ne yow leer na la ne ak yàlla suñu boroom li ñu lay waxal amul waaye tey li tax ñu indi leeral c'est parce que sénégalais yi la ñuy lancer message parce que sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoo bëgg dooro Gaye sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoo ànd ak dooro Gaye ndax dooro gay dafa ànd ak ñoom ba tax na ñu leen di rassurer waat encore une fois mi ngi ci jàmm mi ngi ci salaam ku gëm yàlla la waaye aussi ku gëm justice su réewam la ba tax na bépp yoon bu ñu yàlla may bépp yoon procédure bu ñu war a mën a jaar ba tax ñu am liberté mu dellu ci liggéeyam dinañ ko def ndax am nañ confiance ci su suñu justice su réew te gëm nañ ne incha allahu rabi dina am liberté ñibbi ci njaay njabootam. dafa mel ni médiation pénale euh, je pense que loolu déggoon nañ ko ci presse bi boobu yëpp. mais fi ñu toll nii. je pense que dañuy am confiance ci suñu justice nangu li mu dogal suñuy avoca def li nga xamante ne yoon may na leen ko pour que ñu mën a relancer waat combat bi mën a am liberté pour que dooro Gaye génn dellu ci njabootam dellu ci liggéeyam dellu ci lu baax li nga xamante ne Sénégal moom lañ ko xamee dellu ci taxawu aveugle yi dellu ci taxawu néegu doole yi dellu ci taxawu daara yi dellu ci taxawu këru diine yi parce que loolu lañ ko xamee xamee wuñ ko tontonte xamee wuñ ko xuloo xamee wuñ ko wax lu ñaaw xamee wuñ ko defante te loolu du ko mus a am ndax yàlla moo ko sàkke noonu je pense que kon ñun ñëpp suñu fierté la xanaa kay di dalalaat xelu sénégalais yi di dalalaat xelu mbokk yi xelu am di jàmm yi ne mi ngi ci jàmm te incha allahu rabi dinañ am ndam ci li nga xamante ne ci lañ nekk. dernière dernière question balaa may bàyyi sama gars euh, yeneen plainte yu ñu dégg est-ce que am na parce que comme li ñu wax rek da a communiqué te boobaak léegi yeneen plainte dégg ak yeneen c'est que fi mu toll nii suñu amee lu ñuy leeral mooy li ko opposé ak monsieur saw li ko opposé ak monsieur saw moom li mu ci waroon def def na ko xam nga muy lan ñëpp doon nañ wax naan Doro Gaye dafa daw génn réew mi moo ñëwal boppam ci réew mi moo demal boppam ci police bi pour lan pour régler problème bi nga xamante ne am na ko ci diggante moom ak monsieur saw je pense que ku mel noonu ku mel noonu ku mel noonu mënoon na def ni ni ni ñëpp waxoon mooy que daw na dem na tëgg Europe am na fa lim fa war a am toog na fa mais déedéet ku bëgg Sénégal la ku gëm Sénégal la koo xamante ne dafa gëm ne sénégalais bu ci nekk war ngaa mën a taxaw jàppale sa askan jàppale sa réew ba mu jëm kanam moo tax mu ñëw dem ci yoon waxtaan ak yoon waxtaan ak ki mu joteel ba war koo mën a jagleel li nga xamante ne mooy delloo ko li mu soxla loolu nag je pense que ñëpp xam nañ ko. yoon nag def na li nga xamante ne moom moo ko doy dañuy nangu li ñu yoon di di def waaye aussi du tax ñu bàyyi am na yeneen yoon yu ñu may am na yeneen procédure yu ñu may dinañ ci def loolu mais ñu xam ne Doro mësul daw génn réew mi deful lu muy dawee di génn réew mi tooñul kenn jëlul alalu kenn jëlul alalu askan bi nga xamante ne moom lañ moom moom la askan bi moom o contraire nit la kuy liggéey di jël ci kàttanam di jël ci dooleem di ko jàppale askan bi te je pense que loolu sénégalais yëpp mën nañ ko teewee sénégalais yëpp mën nañ ko seede li ci des nag dañ koy bàyyi ci loxo yàlla suñu borom parce que ay jullit lañ ay murit lañ li ñu gëm mooy yàlla su tegee ndogal da nga koy nangu yoon su dogalee danga koy nangu waaye dangay def li nga xamante ne mooy yoon yi la procédure procédure yi la yoon may nga def ko ànd ceeg say avocat ba yàlla may la ci ndam te ci loolu lañ def tontonte wuñu werante wuñu teesante wuñu ku ñu tooñ baal nañ la ku ñu waxal lu ñu deful paal nañ la ku ñu giñ loo xamante ne defuñu ko paal nañ la Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk baay loolu la door a gëm loolu la ñun waa plateforme xippil xool gëm ñëpp ci social lañ ñu xamee ñëpp ci médiation lañ ñu xamee ñëpp ci jàmm lañ ñu xamee yoon boobu nag duñ ko mus a waaj parce que loolooy njariñu Sénégal. mais boo ñu mënee revenir tuuti parce que bëri na ay lënk-lënk yi nga xam ne am na ci ci ci ci coowu Doro Gueye gars yi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ñuy wax ne que Doro Gueye dañoo nekk di réviser patrimoine yi bi nga xam ne moom détenir na ko leneen li tamit mooy nee nañ ci biir sax mbir bi nangu nañu këram ndax loolu mun nga ñu ci indil ay leeral ci mbir. que mooy li ma wax sànq amuñu jotu tontu waxu mbedd ndax li ñu liñ ma laaj officielul du benn voix bu officiel bu ko wax internet nag ku mu neex yor sa téléphone bind ku mu neex yor sa téléphone TikTok ku mu neex yor sa téléphone def live waaye ba tey fi ñu taxaw di wax li ko opposé ak monsieur saw moo ñu indi fii li mu ci waroon def mooy dagg voyage am bi mu doon def Europe ndax sénégalais yi ku nekk doon wax dafa daw mu ñëw dem wuyu ji yoon waxtaan ak ki mu war a waxtaanal ki mu joteel ba war koo delloo waaye yoon gis nañ li mu dogal dañu ciy teg suñu loxo gën a taxawaat gën a defaruwaat fas yéene jàkkaarloog li nga xamante ne mooy yoon xool li ñu yoon may ñu mën koo am pour que mu mën a am liberté dellu ci liggéeyam je vous remercie merci beaucoup.